Alors, il est 8h passé de 2 minutes. Bonjour euh, euh Walf FM, ici Walf TV. On démarre la synchronisation. Moussa Sen maa ngi lay nuyuwaat. waaw di lay di nuyuwaatante ah Aïcha Diakhaté. Mm, mm. di nuyu comme euh, Salma ak kii nuyoonte la. waaw nuyoonte waat aussi <laughs> nekk Moustapha Segnane nekk secrétaire général bu euh, national syndicat des enseignants en langue arabe. maanaam SNELAS. Mm-hmm. mooy li nga wax rek comme on a perdu assez de temps xëy mm-hmm. na ñu. la balifas bi tuuti. mais bien sûr mais bien sûr ñu ngi ci temps bi sax alors ci sëñaan ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ci waaw jërëjëf ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di nuyu sama sama dëkkandoo bi ma nga xam ne xamuma. Mm-hmm. Euh, di nuyu waa Walfadjri yëpp di nuyu waa émission réveil. Mm-hmm. di nuyu émission li ñu fi dajale tey muy jéem leeral. lenn lu jëm ci wàllu enseignement arabe. ci suñu mm-hmm. système éducatif. tout à fait yàlla yombalal ñu ko. amiin yaa rabbi alors Moussa kon ma bàyyi la sa gan. waaw euh, SG Sagnène lu ñu bëggoon xam rek yow yaay secretaire général national du syndicat enseignant en langue arabe di SYNELAS nga bokkit ci G7 nekkit encore coordonnateur bu. bu coalition nationale pour la cause palestinienne au Sénégal tey ñu gis ni ni ki euh, semaine bi ñu génn ñii di euh, maître coranique yi fare ci daara moderne publique yu Sénégal yéglu nañu ñoom wax nañ euh, lu bëri ci seen i jafe-jafe ndax mën nañ xam lan mooy seen jafe-jafe te ñooñu tamit euh, ñu fàttali nii ñu ngi bokkoon ci recrutement spécial yi nga xamante ni ci 5000 enseignants yi nga xam ne Macky Sall moo ko defoon seen jafe-jafe yow nga boot leen lan la exactement. waaw jërëjëf euh, ci question bu am solo boobu ñi ñuy tuddee les maîtres coraniques ci secteur éducation. ci daara moderne publique gu Sénégal yi bon seen nombre bariwul lool parce que 93 la ñu. Euh, ñu bokk ci mille enseignants yi nga xam ne moom la président jëloon ci at ba ci ginnaaw maanaam ñaari at ci ginnaaw bii mooy ñetteelu at bi euh, mu amoon benn nombre boo xam ne moom lañ ci fixé woon pour enseignement arabo islamique mu am ay lu mat euh, mille yu ñu jël yu jëm ci ay instituteurs ak ay professeurs. Mm-hmm. am am 93 yoo xam ne ñoom la ñu tuddee les maîtres maîtres coraniques. ñu war a dem ci 34 euh, ci 64 daara moderne yi nga xam ne moom la état au Sénégal taxawul ci biir réew mi. 32 mhm. yi état moo ko tabax mais yeneen 32 yi ay privé ñoo ko def mais teg ko ci loxo état. Euh, donc ñooñu dañu am benn jafe-jafe boo xam ne moo gën a fës ci seen i jafe-jafe euh, xam nga pour nga dugg fonction publique dafa am benn diplôme professionnel boo xam ne moom nga war a am. Mhm. imam mu nekk CAP wala mu nekk CEAP. diplôme professionnel boobu nag moo lay permettre nga mën a intégrer wu ci fonction publique. léegi boobu ba léegi nag ñuy dégg nguuru Sénégal di wax ne rëg recruté na lu mat cinq cent wala six cent enseignants coraniques mhm. daf leen fonction publique information boobu nag la ñu bëggoon xamal sénégalais yëpp ne loolu amul mhm. parce que amagul kenn ku dugg fonction publique ci maître coranique yooyu nga xam ne ñoom la ñu wax parce que promo bu njëkk bi kat moom 93 la ñu mhm. amaguñu benn diplôme buy tax ñu dugg fonction publique kon loolu état di wax ne da moom da koo def Sénégalais dañoo war a xam ne loolu information la boo xam ne moom teguwul. parce que 93 yu njëkk yi di première promo bi def nañu seen formation def nañu seen épreuve écrite ci wàllu CAP boobu léegi examen bi day nekk ñaari phase soo admissible ci écrit bi dangay dem classe def pratique. pour pour nga def pratique dafa am benn décret présidentiel boo xam ne mooy wax yenn discipline ngay enseigner inspecteur bi ak commission bi ñëw seet la xool la évaluer la ne mën nga at ne jàll nga wala boog da ngay xaaraat ba déwén nga defaat nga représenté waat sa signé buy wane ne ñii bu demee classe di jàngale discipline sàngam ak sàngam ak sàngam la leen di seet hmm. donc kon ñooñu xam nga mën nga gis gis hmm. seet si leen hmm. ñun en tant que def nañ ci ay démarches gisante nañu ak ministre de l'éducation nationale euh, bi nga xam ne moo fi nekkoon Mamadou Talla bi mu demee aussi ki fi nekk di Cheikh Omar Anne daara mooy inspection des daara léegi mu nekk benn direction ñooñu ba léegi aussi waxaguñu dara loo xam ne lu leer la donc seen première jafe-jafe mooy ñoom seen nawle ñi nga xam ne ñi leen jëloon ci wàllu français bi ak ci arabe bi ñooñu ñi ngi def seen examen pratique mhm. parce que am na décret buy wax ne yenn di seet mais ñoom ñuy jàngalee al quran ba léegi kenn waxul leen lañ leen di seet mooy ñoom parce que boo daara rek da ngay wax al quran mhm. école yi ñu Euh, am na ci ay directeur d' yoo xam ne ñoo jiite daara yi moom directeur d' yoo xam ne vraiment mhm. xamuñu dara ci alxuraan directeur d' école boo xam ne boo ko tegaloon fii kan bi ne ko na la la mën a waxal du ko mën a sax liire wax mën na sax mokkal mais liiral la ko sax du ko mën mhm. kooku bëgg jiite daara ju ñuy jàngalee alxuraan pour mokkal ko loolu problème la donc ñooñu dañu am problème même ak seen directeur yi nga xam ne ñoo jiitee daara yooyu beneen bi mooy problème manuel amuñu ay manuel yu ñu jàngale mhm. troisième bi mooy classe yi ñuy jàngale li ci ëpp ay ay sàkket la parce que comme état daf daf ne woon day moderniser les daara fekkoon ay nit ci ay daara yoo xam ne euh, dañ ne place ay ay classe la yoo xam ne baaxul dañuy moderniser. Mm-hmm. Euh, nga recruter. taxawal ay daara yenn yi nga tabax ko yenn yi tabax bi parewul yenn yi même nekk ay sàkket ak ay zinc yu ñu wëralee ne lii daara moderne la loolu vraiment aussi jafe-jafe la donc ci tënk loolu ay ñetti ca moom problème la yoo xam ne ñiy jàngale al alxuraan ci biir école publique sénégalaise bi ci daara moderne yi euh, ñoom amee nañu ko ok ñu gis ni tamit ñoom ci situation bu métti la ñuy liggéeyee ndax dañoo gis ni maanaam euh, ci lu toll ci trois cent élèves ndongo mhm. ñoom mën nañ am ñetti enseignant coranique. Mhm. est-ce que loolu tamit. Euh, loolu xam nga mooy jafe-jafe beneen bi ma la doon bëgg a wax sànq te egsi wu ma ci woon xam nga buñ la joxee lu ma 300 dongo yow kese nga nekk benn sëriñ daara bi te dongo yi comment yemuñu ay niveau. parce que al al Quran Euh, cent 114 aaya la di cent 6666 versets donc loolu pour nga jàngale ko ku nekk ak niveau xelam fi mu toll li mën a mémoriser loolu nga koy jox. Mhm. après kenn parce que xale yi tollawuñu seeni seeni capacité ki ci wala ci mën a. ci mën a ci mën a mokkal. Mhm. donc da gis benn classe boo xam ne day am lu lu ñuy lu ñu tuddee ay xalaxa ay loolu boo ko tuddee mooy ay ay géew ay groupe. da ngay am benn groupe bu 20 personnes am fee benn groupe bu 30 personnes am fee benn groupe bu 10 personnes mm. parce que ñi bokk niveau rek ñoom ngay boole. yow benn mètre coranique bi ñu jox lu mot 300 élèves nga xam ne mën nga dem ba ba daje ak lu mot fukki group wala boog fukki groupe ak juróom loolu loolu loolu xam nga aussi pour nga jàngale ni nga war a jàngale aussi dafay jafe mm. nombre bi ci élèves yi dafay bari mais nom no mais nombre bi ci jàngalekat yi aussi dafay néew ba àgg ci loolu trop. Mhm. donc euh, li ma bëggoon xam est-ce que ñooñu nga xamante ni seen lim bi tuutee des mu mat son mhm. est-ce que donc mënuñu leen jàppee ay décisionnaires. non du ñu nekk ay décisionnaires dañ dañu leen jàppee comme ay maîtres contractuels. Mhm. parce que léegi système édi éducatif bu Sénégal pour nga dugg enseignement minimum da ngay am ñoo ñu nga gis ñëpp ku ci nekk ñi am nañu bac ñi am nañu licence am nañu sax master mais bu ñu leen recruter dañ leen ci niveau. bac bi lañ leen lañ leen di recruter. léegi bu ñu la recruter ci ci niveau baccalauréat avant ngay am sa diplôme euh, professionnel bi mu doon wax sànq muy CAP bi avant nga koy am diire boobu. Mm. bu warul romb ñaari at. ñaari at yooyu dañ lay tuddee maître contractuel bu dee bu dee dañ la recruter ci niveau licence wala niveau master mm. dañ lay tuddee PC mooy professeur contractuel. contractuel donc nag ñoom fi ñu nekk nii c'est des maîtres contractuels mais du ñu ay décisionnaires. Mhm. voilà ok et donc euh, maîtres contractuels yi invité nañ leen fii récemment de même que les décisionnaires. voilà les maîtres contractuels lépp mooy mooy ñoom rek ñoo bokk benn problème bi parce que pour nga dugg fonction publique da ngay am CAP mooy diplôme professionnel bi diplôme boobu. da ngay jàll phase écrite bi pare def sa pratique admissibilité mhm. même bu ñu la seetee sa pratique ba nga ba nga ba nga admis pour ñu intégrer la il faut sa arrêté d'admission génn wala sa diplôme boobu génn pour arrêté bi génn wala pour diplôme bi génn commission bi la seet ci pratique day defar benn procès verbal inspecteur lay doon ak ñaari instituteur ñoom ñoo lay ñoom ñoo lay seet ci mooy commission bi bu ñu la notee beneen la jàll nga dañu defar benn procès verbal procès verbal boobu dañ koy envoyé mu dem au niveau de la de l' académie bi nga bokk mooy mooy IA bi bu jógee ci ak ci académie bi ñu aff ñu envoyé ko au niveau du ministère de l' mu yóbbu ko DEXCO mooy division mooy direction examen et concours ñooñu ñooy defar arrêté bi wane ne kii maanaam maanaam admis na pour diplôme tel pour pour pour le pour le CAP. Mhm. bu doon PV bi dañ koy traité indi par par par benn maanaam. PV Moussa ñëw na. Mhm. ñu traité ko déedéet Moussa dañuy xaar sa PV ñëw xaar Pele mu baa ñëw. xaar problème mu madame ñëw xaar problème mu x ñëw ak y ñu dajale yooyu soo ko defar benn liste de quinze vingt trente léeg-léeg sax mu nekk cent personnes mhm. ne ñii ñoo ñii ñoo admis ci diplôme CAP pour session mille neuf cent tel wala boog deux mille nangam donc yoo loolu aussi dafa am benn retard boo xam ne mhm. mën nga admissible après nga nga admis définitivement toog cinq ans ci sa ci ci ci kanam te sa sa arrêté d'admission du génn sa diplôme du génn te diggante boobu yëpp da ngay fayeeku en tant que maître contractuel te pourtant mën nañu liggéey liggéey boo xam ne boo admissible rek boo boo boo admis moom définitivement rek ñu en ñu envoyé ko fonction publique mu def benn note yóbbu ko solde nga nga commencé percevoir sa salaire u instituteur mais duñ def loolu dañ lay bàyyi ngay galérer ngay traîner lu mat ñett ñeent léeg-léeg sax moom cinq ans di xaar pour xaar amum arrêté bi arrêté am génnee loolu sax moo ko yóbbu mu nekk décisionnaire mm. doo dootu mu nekk fonctionnaire parce que bu fekkente ne danga nga ëppal da nga am 35 ans plus benn fan rek mm-hmm. doo dootoo nekk fonctionnaire da nga nekk décisionnaire mm-hmm. ñooñu aussi di dund ñooñu jafe-jafe boo xam ne réy na donc mm-hmm. maître contractuel yi professeur contractuel yi sëriñ daara yi ñoo bokk benn gaal gu ñu leen dugal. Mhm. mooy dañu am problème mu lenteur administrative. ok euh, léegi aussi euh, chaque jour on parle ci situation décisionnaire yi. Mhm. Euh, ñooñu tamit est-ce que euh, yéen en tant que syndicat yi nga xamante ni yéen a boot jàngalekat yi. yéen a ngi siy def ay jéego. waaw décisionnaire yooyu sax ñoo gën a jafele mbir. Mhm. parce que décisionnaire mooy koo xam ne bi ñu lay recruter ci fonction ci ci système bi. amoo lu mat 30 ans parce que pour nga nekk pour nga nekk enseignant euh, il faut nga am 18 ans minimum maximum 30 ans léegi bu fekkente ne yow da nga am 18 ans nga dugg nga admissible def sa pratique nga nga jàll nga am lenteur yoo xam ne mooy tax bi sa arrêté d'admission di génn am nga 35 ans automatiquement da ngay nekk décisionnaire de moom mooy kan mooy enseignant bi nga xam ne moom ak nawleen bi ñuy tuddee fonctionnaire. ñoo bokk même métier bi ñoo bokk même tâche yi ñuy def ñoo bokk même ñoo bokk même créneau horaire ñoo bokk même cible ñoo bokk lépp lu ñuy def mais bu weer dee li ñuy fay kële duñ ko fay kële. ndax lan kay am na lu yées fanweeri at wala wala ca la yem yow am nga fanweeri at ak juróom wala wala lu ko ëpp lool lool loolu rek mooy différence bi te 99 virgule 5 pour cent wu ñi nekk décisionnaire du ñoom ñoo def seen bopp décisionnaire parce que nit mun nga def sa bopp décisionnaire maanaam boo defee sa pratique jàlloo defal sa pratique jàlloo mm-hmm. donc da perte sa admissibilité écrit da nga dem defiwaat écrit donc bu dee ci sa niveau la yow moo tax nga nekk nekk décisionnaire kon yow yaa ko yaa ko teg sa bopp mm-hmm. mais bu dee yow bi ngay jàll sa pratique sa CAP yaa ngi ci euh, yaa ngi ci at yi nga xam ne may na la nga nekk fon fonctionnaire mm-hmm. mais procès verbal bi moo yéex a ñëw toog juróomi at juróom benn at juróom ñetti at ba nga nekk décisionnaire ba nga am 35 ans nga nekk dé nga nekk décisionnaire ñu reclasser la comme un décisionnaire kooku yaakaar naa yow tooñoo sa bopp mais état administration lenteur bi moo la tooñ. les fonctionnaires yi fonctionnaires yi fa muy gën a méttee nag mooy boo liggéeyee boo war a dem retraite foofu lay gën a méttee un enseignant buy percevoir 300 000 francs par euh, weer mu nekk décisionnaire mu dem mu dem retraite di percevoir cinq mille wala cinquante huit mille maximum moom moom soixante mille. par fin du mois. par fin du mois lu tax parce que décisionnaire la. Mhm. te moom def ko boppam. Mhm. un enseignant buy percevoir cinq cent mille wala cinq cent et quelques mille nekk nekk décisionnaire dem à la retraite mënta am cent mille lu muy am ay quatre vingt cinq mille wala quatre vingt dix mille maximum. Mhm. donc loolu kon foofu aussi jafe-jafe la un euh, père de famille bu liggéey plus de moom vingt ans vingt cinq ans trente pension wu 100000 francs kooku jafe-jafe la. Mhm. lan moo ko indi mooy décisionnaire. ñun liñ ci def liggéey nañ ci ak état liggéey boo xam ne dem nañ ba ne ko lii saafara si mooy décret bi nga xam ne moo fi indi li ñuy tuddee décisionnaire dañ ko war a far <laughs> mu deñ parce que ay nit bokk lu ñuy liggéey bokk même cible bokk même crédit horaire bokk même diplôme ñu dem retraite ñu seen traitement ne wuut. wuute baaxul loolu kon benn la benn bi mooy li ñuy tuddee EPRES bi. nga xam ne ñoom foofu la ñuy verser seeni seen i allocation nañ ko dëxëñ ñu boole ko ak ñi ñu ñuy tuddee FNR parce que mbir mi benn la même décisionnaire bi sax buy yokk sax cotisation mën na ko yokk ba mu tolloo ak ki nga xam ne moom la ñuy verser ci FNR léegi nag comme moom tooñul boppam état moo ko tooñ montant boobu nga xam ne moom la ñu war a teg ba mu tolloo këlee pension état même moo ko war a versé ñoom li ñu proposé mooy dañoo bëgg créer la ñuy la ñu tuddee benn assurance boo xam ne agent bi dafay verse état di ko fa dimbali après ñu reversé ko FNR pour mu tolloo kële mais kooku yëpp ñun dañoo jàpp ne ay lay la rek ay lay yu ay lay yu tondu la mais du ay proposition yoo xam ne ñun mën nañu ko parce que décisionnaire bi tooñul boppam état moo ko tooñ lenteur moo ko tooñ administration moo ko tooñ kon bu ñu waree am lu ñu lu ñuy corriger état moo war a pour delloo décisionnaire yi seen droit. mais est-ce que aussi seen xeex seen xeex maanaam yéen syndicats yi nga xam ne yéen a boot jàngal desul ci côté décisionnaire yi ak contractuel yi nga xamante ni comme ni nga ko waxee ci sa explication jafe-jafe bu tar la dund. waaw xam nga ñun li ñu mën mooy porter revendication teg ko ci kaw taabal ji état woo ñu ñu jox ko suñuy argument parce que aussi. syndicat du ay grève grève rek mais mm-hmm. cest à boo amee ay dangay da ay proposition de solution yoo xam ne moom ngay teg ci taabal ji ñun dañu indi ay proposition de solution yu bari yoo xam ne dañ ko tegal état mais li nga koy tegal li ci ëpp moom danaan arrangé wu ko parce que lim ciy def ci alal dafay bari mm-hmm. mais ñun dañoo jàpp ne njàng ak jàngale amut prix amul prix maanaam lim ci def ci alal dafay bari d'accord mais du lu ñuy yelwaan du lu ñuy du lu ñuy saraxu lu ñu lu ñu moom la. Mm-hmm. donc ñun loolu la ñu mën teg ay ay proposition de solution su ko état accepté ça va boo ko accepté wul ñun li ñu mën mooy yëglu mooy dem dem ay grève def ay ay mouvement yoo xam ne opinion publique nationale et internationale dinañu xam ne. Mm-hmm. fii la njàngalem Sénégal toll fii la état wu Sénégal toll ak ay jàngalekatam ak ay syndicats de l'enseignement am donc ñun li ñu mën rek mooy indi ay solution teg. ñaxtu bi euh, xalaat ànd ak état bi xalaat ne bu ñu defee lii dina wu pare aussi pour accompagner ko ci saafara yooyu mais bu dee état dafa féeteer lu taxaw lànk siisu bañ ñu aussi li ñu mën rek mooy dem ay mouvement def ay grève est-ce que monsieur Ségnane affaire bi c'est pas au-delà au-delà la delà je veux dire mooy que tey enseignement wu langue arabe fi ci ne xam ne fii Sénégal côté quantum horaire mhm. tuuti la ci am bu mhm. ngeen di ñëw tamit ci classe bi benn yoon la ci semaine bi te baanaka benn union heure de temps la est-ce que sax dina ko matee waaw léegi est-ce que discrimination bi déjà commencé voilà dis dis discrimination bi ci enseignement arabe euh, amoon na mais léegi xaw na tane c'est-à-dire wax aussi wax li am aussi dafay am solo daal léeg-léeg. Mhm. Euh, parce que waroo nekk aussi nihiliste boo xam ne danga naa rek dara baaxul quoi. Ah, voilà bu njëkk enseignement arabe boobu amutoon syndicat amatoon dara boobu enseignant bi euh, daawul am sax sax benn formation lan la daan jàngale benn yoon lay jàngale par ngoon. Mhm. cinq heures six heures. Mm. léeg-léeg sax bala moo ñëw sax xale yi daw. gars <laughs> léegi nag ñun suñu syndicat bi mu juddoo ak suñu mag ñi nga xam ne ñoo ko créé woon. Mm-hmm. ñoo tëb ñoo tëgg ci taabal ji. Mm-hmm. wane na lii du yoon. parce que ñun aussi mënuñu ubbi école tudde ko école sénégalaise. Mm-hmm. recruter ay enseignants ñuy jàngale français nga jël ay enseignants ñuy jàngale arabe te yamuñu lu ñuy jàngale yamuñu nu ñu leen di traité loolu moo tax syndicat bi xeex liggéey ba benn formation bi am concours bi ñuy def pour recruter enseignant en langue française aussi même concours bi ñu def ko pour recruter ay enseignant en langue arabe ah, euh, heure bi aussi au lieu mu nekk léegi cinq heures ba six heures léegi nañ leen jox heure bu doy ci biir crédit horaire bi léegi loolu loolu ñun ñu réussir ko en 1993 avec le ministre André Sonko mm. kooku moo njëkk a dugal heure bi ci biir nga xam ne léegi yokk na ko mu def ko au lieu de de de trente minutes. Mm. mu yokk ko une heure de temps par semaine mm. et par classe ñun ñu ne ko loolu aussi doyul. continuer aussi suñu xeex suñu xeex ba ñu yokk ko ba tey jii pour tënkal la chaque enseignant dina am quatre de temps par classe. Mm-hmm. deux heures enseignement arabe arabe comme langue. Mm-hmm. deux heures éducation loolu loolu moo am. ci école élémentaire classique bi. ñu créé après ay école lu ñuy tuddee école franco arabe. Mm-hmm. loo xam ne c'est cinquante pour cent arabe cinquante pour cent euh, français nga xam ne même euh, euh, curriculum bi nga xam ne moom la ñuy jàng jàngale ci élémentaire bu classique bi mhm. jàngale aussi ci école franco arabe bi en français mhm. léegi nag mu am beneen cinquante pour cent boo xam ne arabe la vingt cinq pour cent yi arabe comme langue vingt cinq pour cent yi éducation religieuse loolu dem na léegi ba am na élémentaire am na moyen am na secondaire ci ay franco arabe public nombre d'enseignants yi aussi ci biir classique bi aussi léegi yokk na mhm. parce que euh, bu njëkk li ñu jël ay cinq dix quinze mhm. maintenant léegi léegi dem nañ ba année yoo xam ne sax jël nañ lu mat ay quatre cent cinq cent huit cent nombre d'enseignants rek man mhm. par exemple nga xam ne dem dem nañ ci li ñu am ne ay arabophone ñoo ñu voix yoo xam ne ñun am nañ ko foofu ci ay ci ay instituteurs kon lim lay wan mooy plus de dix mille instituteurs en langue france euh, arabe ñu ngi ci biir système bi mm. te bokkul ak professeurs yi nga xam ne ñu ngi ci CM yi ak ci lycée yi mm. bokkul ak inspecteur de l' enseignement arabe yi nga xam ne aussi ñu ngi ci biir système bi donc mm. kon am na amélioration yoo xam ne syndicat bi liggéey na ci lu bëree bëri ak kilifa yi diin diine yi nga xam ne aussi ñooy nekk suñu suñu ginnaaw ñuy waxtaan ak ñoom léeg-léeg ci ay doléances yoo xam ne am na mais mm-hmm. terewul ne aussi am nañu ay problème mm-hmm. problème yi aussi bëri na moom ba tey parce que quatre heures de par par et par classe doyul. Mhm. mais nag comme danga nga commencé woon ci 30 minutes nga dem ba am 4 heures gis gis naa ni boo poussé mun nga am parce que ñun li ñu bëgg suñu objectif état sax xam na ko man dama koy wax mun souvent ak ministre yi may li may li may dajale ñun dañu bëgg école sénégalaise nekk école typiquement sénégalaise. Mhm. loolu mooy lan ñu dem ba egg foo xam ne dañu am école franco arabe ci système bi yépp nekk franco arabe franco arabe comment. ñu dem ba di fa jàngale loo xam ne ñun sénégalais moom la ñu gëm mu nekk école boo xam ne ki muy génne ëllëg day nekk ab sénégalais nan lay demee Sénégal dafa am ñetti ngëm-ngëm rek la am. Mhm. islaam moo fi nekk christianisme ak suñu aaday maam suñu mbaaxu maam. Mhm. ñun dañu gëm ne ñetti ngëm-ngëm yooyu la ca nekk dañ ko war a dajale ci ay valeur mhm. ci ay mbaax. ci ay bëgg-bëgg yoo xam ne moom nañu bëgg a nattee sénégalais bi. Mhm. ñu def ko ay modile yoo xam ne dañ ciy former suñuy instituteur suñuy professeur dañ ciy former suñuy xale depuis préscolaire ba mhm. ba université. Mhm. loolu dem jëli rek école école. Molière bi voilà Molière bi indi ko. gis nañu loolu bu ko def. li muy indi mooy ay nit ñu complexé ay nit ñu gëmul seen bopp ay nit ñu xamul fan la ñuy teg seen temps. mais la preuve sax la moom rek su ma ànd ak moom rek par rapport à ça c'est-à-dire que man bu doon sama Euh, bien que quatre heures temps yi am na mais ngeen yem ci quoi. France aussi ñu gën koy wàññi. parce que man li ma gëm mooy que li nga wax ni tey ji pour mën a am valeur yooyu nga xam actuellement war nañ koy incarner ñun pour mën am il faut que ñu koy ñu jéem a instauré suñu langue nationale yi. c'est-à-dire que il faut que ñu jëm suñu langue nationale yi jëm koy. dugal en exerce ci école yi. waaye teel a alphabétisé que il faut que xale yi. mat bi ñu koy jàng comprendre mhm. man gëm naa ne avec sa ñun gëm naa ne Sénégal mën naa développer. mais mhm. fii léegi ñu ngi ñëw di ñu gëm la ay langue arabe. fii léegi ñu ngi ñëw di ñu gëm la ay langue française mhm. lu loolu moom moo ñu mën a développer. li ñu mën a développer mooy ñun suñu langue yi ñu jëm a xool naka lañ koy mettre en exergue. di ko bind di ko wax di ko jëfee ci ordinateur yi. loolu kese boobu mu ci mën a génne mais du ay langue étrangère man sama gis-gis. voilà loolu xaaral bu am solo la bu rafet la déjà sax ministère de l'éducation nationale ñoom ñu ngi ci lancé boobu parce que jàngale xam-xam jëfandikoo suñuy làkk déjà commencé nañ ko Sénégal depuis cinq ans ci ci ñu ngi koy liggéey. Mm-hmm. mais nag lawagul ci ci école yëpp mais li li tax ñu wax ne arabe bi dañ ko war a yokk mooy français boobu moom la ñuy utiliser pour jàngale suñuy diin suñuy suñuy làkk. maanaam français maanaam caractère mu français bi alphabet bu france bi moom la ñu def mu nekk wolof mu def mu nekk polaar mu def mu nekk séeréer te pourtant alphabet bu arabe bi moo fi jiitu boobu mhm. maanaam alphabet bu araab bi bu njëkk tubaab bi même bi mu ñëw dañu ñu coloniser si pour mu bindante ak suñu kilifa yi euh, buur yi fi nekkoon ak suñu sëriñ yi fi nekkoon arabe la la doon bind maanaam bu mënta bind arabe mu jël caractère bu walafal ko wala mu def ko mun ci séeréer wala mu def ko ci pulaar pour mën a jokkoo ak ñoom pour pour wax la ne li nga wax ni lu xel nangu la looloo war a nekk mm-hmm. parce que pour nga jàngale sa aadamaam pour nga jàngale sa mbaaxu maam doo ko doo ko doo ko jàngale ci arabe doo ko jàngale ci français mais ci làkk wi ñu dégg moom nga ko war a jàngale mm-hmm. foofu dama ci ànd ak yow à cent pour cent mais fi may wax rek mooy ñun heure yi ñu jox ñun dañ ko xeeb ba tey parce que moom quatre heures dafa tuuti parce que quatre yoo xam ne dañ ko xaaj deux heures rek ngay jàngale arabe comme langue mm-hmm. ngay jàngale li nga utiliser arabe bi di ko jàngalee diine. mais du loolu sax enseignement religieux enseignement religieux boobu sax dafa am solo trop. parce que ñoo nekk ci dëkk boo xam ne dañuy wax ne quatre-vingt-quinze pour cent mhm. des musulmans la xale yi duñu jàng seen diine ci école yi loolu dafa war a jeex mhm. parce que même école catholique yi dinañ jël même bu dee deux heures de temps mhm. wala trois heures de temps jagleel ko catéchisme non ñoom dañ koy ñu xam exactement lan la seen diine tënk voilà su fekkee xale bi balaa moo yegg dix ans mën na def communion am def confirmation xam lu bëri ci diinam te fekk na sa du yegg mag fii da ngay gis ku ne man mii boo ma tiimalee téere alxuraan damay diddidal lu ma ci xam lu dara wala allahu rek laa ci xàmmee loolu moo dul yoon parce que ñun ñëpp on a fait des années d'études plus treize ans avant nga am bac. plus de sept booy jógee université. Mm-hmm. kon je pense que yooyu boo ko mm-hmm. emmagasiné. Mm-hmm. war nga mën a jàng lépp luy enseignement. comme côté religieux. et comme côté aussi. Euh, euh, euh, xam nga xam nga li nga wax ni lu rafet la xam nga Sénégal suñu problème mooy lan du am suivi. xam nga papa bi ñu bi ñu koy def. mille un suñu système bi moo baaxul. moo baaxul cest à loolu la jéemoon a changé. Mhm. booy xool états généraux yi ñu defoon en 81 nga gis assises yi ñu def en 2014 lan la woon lan la boobu li ñu bëggoon mooy ñu am suñu curriculum bopp. ñu am suñu école bopp maanaam école bi li ñu ciy jàngale continue bi mu nekk sénégalaise. loolu la bëggoon mais bi ñu ko defaree mu nekk ay ay ay lël yu am solo mu am ay tënk yu am solo yoo xam ne daf cee génn tënk yooyu bi mu bi mu génnee ñu teg ci taabal ji kenn jëfewu ko. li ñu limee suñu suñu problème léegi nag bi ñu xam nga foofu la ñu indee sax njàngaleem diine moom mm-hmm. mais bi ñu ko tegee ak moom moom moomu kër maanaam suñu mbokk catholique yi ñoom dañu indi seen programme mm-hmm. musulman yi indi seen programme ñu teg ñu ne léegi képp kuy jullit nañ la jàngal li képp kuy catholique nañ la nañ la nañ la jàngal li mais suivi bi mu bi mu war a am mm-hmm. amul parce que pour nga jàngale dafa war a am benn contenu contenu boobu dafa am curriculum boo xam ne moom ngay tëgg soo paree nga indi ay manuel yoo xam ne moom la jàngalekat bi di jëfandikoo mm. xale bi di ko jëfandikoo mais manuel yooyu amul donc pour te dire que ne suivi moo amul ci ñun maanaam mm. ñun dañuy xalaat mm. dañuy teg dañuy indi ay xalaat yu rafet rafet rafet teg ko mais pour topp ko jëmmal ko mooy la mu Sénégal mais damay wax ne sax du du Sénégalais yi mais suñu état yi mm-hmm. maanaam dañuy def rek pour mais defuñu pour jëmal. Mhm. ñun loo mooy suñu jafe-jafe. alors li ñu des si waxtu donc euh, ñu jéem a def benn transition génn ci langue arabe dem ci wàllu G7. Mhm. ndax gis nañ ni élection de représentativité organisé nañ ko euh, récemment. Mhm. Euh, cour suprême ginnaaw bu waa CELS a déposé ab recours. ñu daal di annuler élection yooyu noonu lan ngeen gisee loolu ak aussi souvent dañuy nemmee ko ci biir g ay division ñetti pàcc. G2 G4 ak G1. Mhm. loolu tamit nan ngeen koy. jàppee waaw c'est-à-dire G7 enseignants yi maanaam G7 du organisation yi ñoo daje pour créer seen G7 dañu dem élection 2017 dem élection 2023 élection yi bi ñu ci demee enseignants yi ñoo dem voté ñi ñu voteel mooy les sept syndicats. Mhm. en 2017. 2023 ñu voté waat sept syndicats mais am syndicat bu génn am seen am syndicat bu dugg. ñun dañoo bokk ci sept syndicats yi bokkoon 2017 ak deux ak 2023 parce que ñoo fa représenté enseignement arabe. Euh, léegi problème bi am mooy du organisation yi seen bopp ñoo boole seen bopp mais enseignants yi ñoo leen boole. loolu dafa war a leer benn. deuxièmement bi 2017 amee enseignants yi boo boole G7 ñu nekk benn groupe. dañoo gérer dañoo dañoo nawlonte liggéey ba am li ñu am ci protocole d'accord wu 2022 bi loolu yaakaar naa Sénégal yëpp nangu nañ loolu. Mhm. mais bi ñu demee ci élection wu 2023 yi dafa am problème problème bi am mooy bi ñu demee ba teg résultat yi mu génn man maa woote sama siège ak Kër Massar ñu toog ma ne gars yi léegi ni ñu doon doxee nañu doxee nu ko gën. loolu mooy len nañu defar la ñuy tuddee benn charte benn code de conduite boo xam ne ci la ñuy tënku ñun ñëpp ñu liggéey ci ñaari rencontre boo war ko finaliser bi ñu ko waree finaliser euh, ñu dem ba ay côté timis ñu ne nañu aj liggéey bi ba beneen yoon parce que boobu jeexul parce que léegi aussi boo bëggee mu sérieux aussi doo ko patam patamee jour boobu ci ngoon gi lañ fa jóge ñun ñëpp ñu dem ñibbi timis gee ñu gis benn plan d'action boo xam ne mi ngi génne ci benn ci juróom-ñaari syndicats yi toogoon doon réunion ak Kër Massar. Mm. ci suñu siège. ça c'est grave. ça léegi ñun ñu def ay démarches wax ak ñooñu ñu ne noo ñoom seen base moo wax il faut ñu dem mouvement ñu dem mouvement beneen syndicat ci même. Euh, xam nga par ordre la quoi dafa am ordre élémentaire presque ak élémentaire am moyen secondaire am code am code de contrôle. Mhm. beneen syndicat ci ordre syndicat bi déclenché plan euh, plan d' action bi dem ànd ak kooku. Mhm. donc yaakaar naa kon ñaar yooyu ñoo ñoo njëkk a beddeeku ñoo njëkk def benn action boo xam ne. Mhm. defuñu ko ci turu G7. lii fii la problème bi commencé ñun nag li ñu war def def nañ ko jéem nañu. woote jéem nañu dajale parce que man bon man moom comme ñoom ñëpp dañu maa dañu maa jox cër. Mm-hmm. fu ne dem naa fa pour jéem a dajale ba fi ñu nekk nii nii nii nii am naa yaakaar ne dinañ àggat foo foo xam ne G7 bu 2017 ba dina ñëwaat mais nag du yomb parce que ci biir aussi fii ak charte bi ñuy teg fii ak code de bi ñuy teg ñun ñëpp nanguwuñu ko dañu am problème parce que daf ci am suñu biir ñoo xam ne dañu fës ci wàllu politique. te syndicat ñun dañuy ñun suñuy règlement intérieur suñuy voilà ñun daf ñu tere loolu quoi donc bu amee ci suñu biir koo xam ne moom daf ne carrément damay politique ñun aussi dañuy am ja dañuy am jafe-jafe pour taxaw ak moom mm. moo xam da ngay politique jàppale nguur moo xam da ngay politique contre nguur parce que mm. vraiment ñun aussi li ñu bëgg rek mooy intérêt école bi mm. intérêt enseignant yi mm. mais G7 moom vraiment li fa am fi ñu nekk nii moom gënalu kenn kenn kenn ci secteur éducation ñu koy jaajëfal lu baax a baax moom Moustapha Segnane may fàttali secrétaire général syndicat des enseignants en langue arabe nga yooyu tamit Moussa Sène ñu ngi lay jaajëfal waxtaan bi amoon na solo vraiment plongel nga ñu euh, mm-hmm, si monde enseignement a fallu ko ñu waxtaan ci domaine boobu mm-hmm. parce que ça ay yenn kuréel rek la ñuy invité. effectivement te ku nekk xam na ni langue arabe buñ ko waxee ak buñ ko waxul yëpp am na souffrance. Mhm. parce que ñun ñii comme lu mu wax sànq euh, ay deux heures lañ doon def par semaine. Mhm. wala quatre heures par semaine. te xëy na loolu mënoon na la dimbali ci quelque sorte mhm. donc euh, ñu koy remercier davantage aussi di ko masawu coon parce que ci embouteillage la ñëwee euh, demoon